nuyu bokk yu tedd yi fi nekk yëpp ko tàmbalee ci sëriñ Ahmad Bari mi ngeen ma jiite Rawdu Rayaahiin di nuyu njabootu Cheikh Cheikh Saliou bu nekk suñu doomi sëriñ sëriñ Jiili ak sëriñ Makuba baax nuyu mbooleem borom xam-xam yi fi nekk ak nit ñu baax ñu fi nekk di am mbégte bu baax a baax jotaay bi ak bi ñu ko defee béréb bi ñu ko defee day béréb bu xam-xam ki ko moom itam ku nekk xam taxawaayam ci xam-xam ak yar ñu sëriñ Saliou yàlla na ko suñu borom doon leer dafa mel ne defee ko fi kon da ngeen delloo rek da ngeen ko delloo ci bérébam loolu nag ñu ngi ciy sant waa Rawdu Rayaahin ñi nga xam ñoo xalaat jàng na bi nañ ko xamee dafa mel ne daanaka ci lekk ak naan amee njariñ ci doomu aadama li mën a li mënta ñàkk ci doomu aadama dafa mel ni jàng itam la mel euh, ba tax ne nit ñi moom ñaare bu ñu amul fu ko defee rek il faut que ñu yokk wuti tax taxawaay rafet bi nga xam ne moom la ci suñu kilifa gi tedd gi fi nekk dañ koy rafet bu baax di ko ñaanal suñu borom gën taxawaayam ndax jàng day loo xam ne mënta ñàkk ci doomu aadama ndax jekk nag dëkk bi moom njàng mos fee jóg mën nañ ne xam-xam yi fii nag yëpp biir dëkk Touba bi lañ jànge ci daara yi fi nekk mel ni daarul maarif yi nekk jumaa ji ak kër sëñ Habibu kër sëñ Sohaybu ak gedde ak yu mel na ñoom ba mën nañ ne cadre yu bari wala boroom xam-xam yu baree bari ci dëkk tey ci foofu lañu génne wante dafa am roq yoo xam ne àggu fa woon nag daw fa àgg da li ko waral mooy njàngum cosaan mi li muy baax baax baax doomu soxna yi la gën a ñoo ko gën a jublu wante nag pour mu àgg ci ñëpp moo waral xam naa ne ñuy xalaat école di ko xalaat ndax day béréb yoo xam ne nii maanaam doomi soxna ji mën na caa nekk baadoolo ba mën caa nekk baykat bi mën caa nekk ku nekk mën caa nekk mën caa jàng te ñoo ñu am na ci ñooñ bu dee daaree cosaan yi rek li muy def def ay résultats yu baax bu dee moom rek mën nañ caa bañ a jàng ndax dañuy jàpp ne rek daara la wante nag léeg-léeg nit ñi dangay jaar ñoom soo xam ne da nga leen di tëral aw yoon boo xam da ngay mel ne ku leen ndax tegal leen loo xam ne ni mën nañ caa jaar da ngay bëgg ci ñoom nga am ko ci loolu moo taxoon ku mel ne Serigne Cheikh Mbacke ak mel Serigne Matouda doon sos ay école yooyu tey mën nañ ne am na résultat yu am solo ci réew mi ci ay borom xam-xam yoo xam ne tey ñu ñeen ñaa ngi ci université yi ñeen ñaa ngi ci yeneen béréb yi te ñu ci nekk dañ koo boole te téye seenu taalibe ndax njàng niñ ko xamee nit ki ni nga bëgg ni nga bëgg ni bëgg saw nit mel ci sam njàng koy def boo gisee ñi ñi takki bomb di di di di yàq ay bërëb loolu lépp ci système bañ leen jàng rek la fii ci dëkk bi mën nañoo tëral système boo xam ne nii nit ñi mën nañoo nekk ay daanukat ni ñu ko bëggee nekk ñu gëm Serigne Touba ba noppi mën a participer bu baax a baax ci doxinu réew mi loolu yaakaar naa programme bi mel noonu sax ci ma jóg sëñ Saliou yàlla na ko yàlla dolli leer programme bi mel noonu santaane woon nañu ko ba am ay liggéey yoo xam ne defoon nañu ko ci yu mel noonu mën nay bàyyi xel bu baax a baax ndax dañoo war a fexe bay génne koo xam ne nii dañ nekk jullit bi ñu soxla nekk taalibe bi ñu soxla wante mën a participer ci réew mi ndax réew mi itam di xew ne ñu bàyyeeku rek ay nit ñoo xam ne nii ku nekk xam ne ne fi ñu ko jëmee bokkut ak fi diine bëgg loolu buñ ci sàkkul pexe dana dana tam ñu jëmee du baax moo tax yaakaar naa loolu ñu faut ñu xalaat système njàng moo xam ne comme nii sëñ bi def loo xam ne dañuy fexe ba lépp daje ca ba ku ca génn tey mën a bokk ci mën a participer ci jëm kanam bu réew mi kon damay rafetlu jotaay bu baax a baax Euh, bal ma jeexal nag xanaa damay wax baat boo xam ne moom sama yooyu bopp la sant sëriñ Mourtala mi nga xam ne moo jiite jumaa ji ndax gis nañ ne dañ euh, ko ko denkee ba léegi itam mi ngi fi fexe ba xam-xam di fi dund fexe ba njàngale sëñ bi di fi dund loolu yaakaar naa ñu ko doon denk loolu lañ séentoon ci moom kon moom dem yàlla na ko yàlla saxal yàlla na suñu boroom saxal liggéey bi nga xam ne sunu sëriñ bu tedd ba moo moo ko bàyyi woon